di ko siyaare tey ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ku wér eh, di siyaare suñu kilifa gi ñu toogal sëriñ Afia Busal imam mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Muxaddamaatul Xidma di ko siyaare tey ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko ci barke Cheikhul Xadim ak dooley màggal gi eh, tey jii nag buñ gisee suñ jataay bii eh, ñoo ngi nii ci jumaa ji mu dëppook gaaw fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar Euh, nga xam ne suñ diggante ak màggal gi benn bis moo ci des muy tey muy suba euh, daayira muxaddamaatul xidma Espagne euh, ñu doon seen ndaw ñu yebal na fi ñu teewal fi mboolem fédération Espagne bi yëpp ci njiitul sëñ Bakke Ndiaye ak alaaji Abdou Ndiaye sëñ Mor Tambidou sëñ Adi Touré Baye daam Lo mi nga xam mooy coordinateur général bi nga xam ne mooy soññee liggéey bi ci Espagne yàlla dogal na nag liggéey bi nga xam ne dañ ko daan faral di def su màggal gi jubsee daayira bi yëkkati ak kàddu soññee ah, soññee ñu jox ñu ci ndigal liggéey boobu lañ doon jébbal si tey jii sëriñ Afi bu sal imaam yàlla dogal na tamit ah, jiitaloon nañ ci lu toll ci ah, cinq cent quinze mille cinq cent indiwaat nañ itam tey jii lu toll ci un million CFA indi ko ni ci sëriñ Afi bu sal imaam boo ko boolee da lay jox un million bu teg cinq cent quinze mille cinq cent loolu nag muy jëf yoo xam ne euh, jëf yu ñu séntu woon la ngir def ko ci liggéey bi euh, jébbal nañ ko sëñ Afia bu sa imaam euh, sëñ bi ñag ñoo ngi lay jottali kàddu yi mbooloo mi ci seen taxawaay ak seen yéene jiñ fa seen ànd ci liggéey bi rek di sàkku ngeen gën leen doole ñaanal ba leen yéene ci liggéey bi yàlla defal leen ko daayira bi nag it mboolem daayira yi Sëriñ Tuubaa yi ci Espagne yëpp lañ ci woo ñi ci jëf ak ñi ci yéene ñëpp yàlla na ñaan gi rek dal ci seen kaw ñuy xamal ne tamit association nationale bi nga xam ne maanaam mooy taxawu liggéey bi euh, bi ñu wootee euh, bari na mbooloo mu wuy si ñoo xam ne kenn xamuñ fi ñu nekk danoo am liggéey liggéeyal Serigne tubaa rek gis numéro compte bi dugal ci seen i jëf jëf yooyee nag mook jëf yi daayira yi joxe rek lañ boole moo nekk nii euh, kàddu yooyu daal lañ doon indi di leen xamal ne daal seen jëf ji ngeen jëfoon ci màggal gi Ah, sëriñ Afia bu sal imaam jot na ci jébbal na ko daayira bi kon nag ñu maas rek teewul sëriñ Afia ah, mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ah, bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yëpp bokki taalibe ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp di ndokkeel ñëpp jullit yi ak fi nekk ci fan yu tedd ñuy toll di jiital nag Cheikh Ahmadou Mountakha mi nga xam ne moo nekk ci boppu tariqa al ndokkeel di ndokkeel njaboot Serigne Touba gépp di ndokkeel taalibe yëpp ci bisi solo yu am solo yi nga xam ne ci dañ toll di ñaan sëriñ bi war noo nangul te nangul suñu taalibe nangul suñuy jëf di wax nag ñu ngi nuyu bu baax bokki daayira Touba Espagne di ko sëñ Assane Diop mi nga xam ne moo fa nekkal daayira bi ni mu ko waxee ñu ngi jëbal waat seen liggéey boo xam ne yàgg nañ koo indi lu ñu miin la ci barab bi ñoo xam naka jekk ñu ngi fi ko dikk fekk leen fi ko dem bàyyi leen ci muy jëf joo xam ne ju daayira bi la um, kon andee ji nañ ko kon ñu ngi dolati di sant mboolem mm, waa Espagne sant mboolem réew yi nga xam ne suñu asan jot naa jokk ak ñoom ñuy bokk ci liggéey yu baree baree bare tey nag mu ñëw fi indi fi indi fi liggéey mu xam mu bu daa di Espagne kon ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu. di leen sant di leen ndokkeel di ko ci loxo sëriñ Asan mu jotali ko mbooleem ñi nga xam ñoo bokk ci daayira boobu di wax ne euh, daayira Muxaddamatul Xidma moom yéen banqaas ngeen ci bu boo xam ne duñ wax ne ñu ak cant ci biir daayira bi ngeen bokk ndax lépp lu daayira bi mas a taxawal rek ba mu taxawee ak léegi yéen ak ñoom ko seq mm, lépp ci wàtte fere mën nañ ne la jàpp yéen ko def ba tax na ko ñu ngi rafetlu bu baax seen taxawaay seen jëfi démb seen jëfi tey seen tum seen jëfi ëllëg moo koy ëpp ndax noonu lay seen bañ tam day ànd ak ba léegi loolu mooy seen doxin seen tey ju nekk gecc na seen démb kon nag ñu ngi delluwaat rek di leen tàllal loxo te ne daare ba nga daare ba nga daare ba nga ngoog mi ngi bi mi ngi ak ay taxawaay yu bari ak seen yu yaatu waaye di leen tàllal loxo te di leen ci yaakaar itam di leen wax ne rek daay man daañ ngeen bàyyi xel ci luñ mën luñ mën di sumb rek sumb daal ne lañ cee bàyyi xel di rafetlu seen taxawaay itam ndax mosoon séntu ci lenn lu mooy loola mel na nañ bëgg kon nag ba tey rek um, mbir maa koog um, daara ba daara ba dañoo bëgg muy jëm taxaw jëm kanam fu mu toll ci ay jëfam um, te lañ ca yaakaar kenn jiitu leen ci kon ñu ngi leen di sant bu baax te ñaanal nag Sëriñ tubaab mi nga xam ne moo tax ngeen di def ku nekk sa ittee bopp mu wutu la ca dafa la ca la nga tële te nga def ko itam ba ba doyal. ànd ak barke gu barkeel su mu doon musal ñëpp aar ñëpp sàmm ñëpp seen taxawaay ni ngeen ko bëggee rek mm, suñu borom def ko mu kawe sa njort ak sëñ Tuubaa defal nu barakatan bi nee ni xëy ma suñu mari dina ana al xidma ci barke Seexul Xadim ko ñu ngi ñëpp di gërëm ñëpp dafa nekkoon suñu Asan mu ngi noonu eh, loolu rek mooy kàddu ba tey rek ñu ngi gën a feddali eh, suñu taxawaay si taxawaayu daayira bi ci foofa di wax ne rek mm, ñu ngi rafetlu sa taxawaay bu baax ni nga xam ne mbooroom mi nga àndal ñëpp noonu lañ ko noonu lañ koy rafetloo ndax mbooroom ñi nga xam ne dañ nañ dañu faral di woo di jot ñu ngi wax sa taxawaay ci liggéey bi di jaaxal di jaaxal sax fooy jëlee fooy jëlee dépasse ndax koo xam ne guddee ba ci kaw lépp di ko jox suñu taal bu mu jeex loolu suñ ñu bari ñu dëkk foofu ñoo xam ne ñu ngi woo ko wax. fekk na it noonu lañ ko xamee waaye sëñ Tuubaa mooy koo xam ne moom bokk la lee guddi bokk la lee keram fayee la guddi man ku féete sëñ Tuubaa ku nekk sëñ Tuubaa féete la fépp kon mboolem daayira bi yàlla na sëñ Tuubaa féete fépp ñaan ñëpp suñu borom musal leen dool leen sàmm leen aar leen ba luñ def tey rek bu ëllëgee muy askan lañ def di leen ci bakk sëñ Tuubaa leen ndokkeel nag di ndokkeel jullit ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah kon xam naa kàddu yooyu rek mooy sëriñ Afé indi woon ci kàddu yi cant ak ngërëm euh, tegaat ko ci suñu loxo itam ñu jàllalewaat ko ci mbooleem waa diaspora bi mbooleem ñi nekk ci bitim réew rek muy Amérique ak Afrique ak Asie euh, ñëpp rek sëriñ baa ngi leen di jot li kàddu yi cant kàddu yi ngërëm di xam ne liggéey bi agsi na di soññewaat rek la ca kanam mu waajal gàmmu gi ak Euh, liñ fi soññe woon mu jëm ci matériel yi nga xam ne mooy euh, xayal jumaa ji ci di ko taxaw rawatina lu mel ne tàpp yi ñu fi indi woon muy aspirateur yi nga xam ne Sëñ Abdou Lahad Thierno na ci kàddu ci ndigalul Sëriñ Yaafe ndigalul daayira bi loolu tam soññewaat nañ ci ngir képp koo xam ne rek daa nga ci jàpp ñu xam ne ñu ngi lay tàllalaat loxo ci liggéey bi euh, noonu tam la ñuy jaajëfale waa fondation mu Muxaddamaatul Xidma Amérique sëñ Cheikh Jonn nekk ci bopp sañ am Amsatu Laam ak mboolem ñen ko siqal ñooñu itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax moom daal bàyyiwuñu kenn daal képp koo xam ne daal euh, bu daayira bi jógee nga ànd ak moom rek euh, cant li ak ngërëm li agsi na ci yow kon nag yàlla nañ ci bokk dajee rek barke waq di awaay jële si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo ina li si na saarahon li xidmati fa lahum dayaara wasal jannati jërë ngeen jëfati jërë jëf قباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر